asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen jégalu ci retard bi nga xam ne am nañ ko. maa ngi tudd Omar Cissé may directeur exécutif association l' des commerçants et industriels du Sénégal. ñu ngi fi nag tey daje ak yéen ci benn euh, point de presse ngir jooytu naxar boo xam ne dal na suñu kaw. muy situation nag boo xam ne situation bu méttee métti la ci ñun te loolu du yem ci ñun rek day roogalaat ba àgg ci askan wi ndax nga xam ngeen ab commerçant moom lu ko dal ci liggéeyam rek moom mi indi bagage yi ñuy jëriñoo mu jaar rek àgg ci askan wi muy nag lu mettee metti situation boobu nag ay mbir yu baree baree ko waral xaj na ma ne su tudd lépp waa danañ ci junj rek yi nga xam ne moo gën a taxaw tey ñu jàpp nag ne dana gàllankoor suñu liggéey bu baax a baax te ku wax liggéeyu commerçant bu gàllankooru ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ne tey économie la ci ëpp mu ngi dépendre ci économie boobu ñu tuddee économie informelle kon amul sikk ci ne bu amee jafe-jafe rek. réew mi ci boppam mooy am jafe-jafe ndax économie bi ci réew mi ci boppam mooy am jafe-jafe kon nag ñi ngi door di woo autorité yi ku nekk jël sa responsabilité comme ñun niñ ko defee ndax mënoon nañoo def leneen waaye dañoo préféré bind def lii di conférence de presse yëgal ñi war a yëg ñëpp pour ñu jël seen responsabilité ku ci nekk du ñàkk sax nag dañ leen tudd ndax responsabilité yooyu dafa am ñu ko gàddu ñoo xam ne ñoo ko war a jël te jëluñu ko faaw rek ñu tudd leen ndax nag mbir boo ko bëgg saafara da koy da nga koy wuññi da nga koy teg ci mbedd mi ku ci nekk xam li nga ci moom su ko defee nga mën koo jël def ci la nga war a def problème yooyu nag comme ni ma ko waxee bari na waaye lii na këtt na jonn tey nga xam ne sonal nañu trop mooy conteneur yi nga xam ne day tardé tardé bu jiggi day conteneur boo xam ne léeg-léeg mu def ñaari weer wala sax ñett ci àll bi wala ñeenti weer ci àll bi te délai tolérable bi nekk ay 15 jours 20 nga dem def ci yokk ci trois mois 4 mois loolu amul sikk ci ne conséquence yi dana métti lool ci commerçant bi rawatina bu fekkee conteneur yooyu bagage yooyu dafa nekk bagage évétement lu mel ni tabaski imaginez ku yëpp ay paaka wala mu yëpp ay yére yaakaar koo jaay ci tabaski bi conteneur bi ñëw après loolu wala mu ñëw la veille de la tabaski xam ngeen ne conteneur boobu déwén la jëm fekk kooku mu ngi jël ay prêt ci banque yi mi ngi am ay bor yoo xam ne mu ngi doon yaakaar conteneur am ñëw mën koo jaay mën a régler ay mbiram du ko mën a def la cay mujj mooy ay jafe-jafe. yi tey léeg-léeg am jafe yoon ndax yi fi jàmbur ñu yor waaye li ci doy waar mooy duñ la sax woo massawu la waxuma laa nag di la di la dédommage la woo sax massawu la waxuma laa nag di la dédommage te li doy waar mooy benn seconde dong nag boo leen ko tàrreeloon. doo yendal doo fanaanal te fayoo leen ko loolu nag ñu jàpp jaaduwut kon autorités yi dañ xam ne lii la ñuy ñun ñaareel bi mooy euh, am na pacte boo xam ne euh, defoon nañ ko bokk na ci jàmbat yi te bu fekkoon ne pacte bi rek respecté woon nañ ko xaj na duñ toll fii tey ay mbir yu baree bari ñu tënkoon ko ci waaye loolu ba léegi dañu am problème pour wéyal ko te le 30 novembre 2020 lañ defoon loolu loolee tey boo ci seppee yenn point rek lu mel ni frais yoo xam ne commerçant yaa ngi koy subiir muy lu diis te tegul ci dëgg dañuy wax ñun ne sàcc la sax dama bëgg mu leer waaw balaa maa jàll ci faux frais yooyu mooy bëgg a tudd ñu ngi yokk ci conteneur yi sax jafe-jafe yi ñu ci am beneen boo xam ne mu ngi ci mooy fret bi maanaam transport bu ñu xamul fret bi transport conteneur yi ñuy jëlee bitim réew andi ko fii boo daan fay benn tey àgg na ci juróom loolu nag jàpp naa ne jafe-jafe la moo tax tey conteneur yi tardé ak fret bi yokk ñaari mbir lay jur ñooy tànn nag benn ñu toog mënuñ ko supporter mu am rareté de bagage de marchandise su fekkee demande bi dafa dem ba ëpp ofre bi li wër mooy flambée des prix day am prix day yokk wa illa nga jël ko indi ko frais yooyu nga yokk ko ci bagage yi prix yi yokk kon bu fekkoon ne ñaar yooyu maîtriser nañ ko li ñuy jooy tey duñ ko jooy ci ay njëg yu yokk mën a jafe-jafe yi bokk ci pacte li ñuy jooy tey bokk na ci pacte du 30 novembre 2020 bi nga xam ne bokkoon nañ ko tënk ca Saly ba léegi dañoo am problème pour doxal ko mu am ci nag point boo xam ne euh, dañu jàpp ne c'est le moment wala boog mbir yi danañ ko delloo ci booy mooy li ñu tuddee faux frais dafa am frais yu ñuy teg yoo xam ne toll na ci vingt mille cinq cent par connaissement te sàcc la ci tënk dañuy wax frais de communication dix mille francs frais d'avis d'arrivée dix mille francs euh, euh, comment dirais-je imprimé mille cinq cent ngeen d'accord ak man ni xanaa allo Cissé sa conteneur bi ñëw na xanaa wax dëgg yàlla benn unité waru ko weesu loolu 10 000 francs xanaa bari na même bu fekkoon dañ ko waroon fay conteneur bi wàcc na ci euh, bato bi allo 10 000 francs xanaa loolu wax dëgg yàlla jamono télécentre sax unité jarutoon 10 000 francs imprimé mooy feuille bi ñu la bindal cinq 1500 ñun ñëpp d'accord nañ ne raamu papier yaakaar naa 2500 lay jar dana def ñaata 500 feuilles. benn feuille boobu boo ko boo ko divisé ñaata la lay jox ñu ne benn feuille 1500. mieux le service n'est pas rendu ou bu fekkoon ne service bi sax dañ ko joxee ñu mën a wax bu fekkoon ne 1000 clients la ñu am woowuñu 10 donc loolu leer na ne tegul ci yoon légitimul légalul loolu nag mu mel ni wax nañ ko fi ñu ko war a wax yépp waaye ba léegi amul saafara liñ jéem a def mooy jéem a wàññi wax na dañ koy wàññi ñun waxuñ ñu wàññi dañoo wax ne buñ mënuñ ci fay un franc un franc ak 18 franc la ñu yemale kon loolu problème la euh, nga ñëw ci pacte bi ba tey am na problème mu facturation bu ñu wax nañ def audit sur la facturation portière parce que ba léegi ni ñuy facturer nit ñi commerçant yi li ñuy ñàkk ci xaalis ci loo xam ne tegul ci yoon dafa bari audit boobu ba léegi dafa tardé parce que tout simplement compagnie la ñu war a auditer ñi ko war a euh, diligenté defuñu ko ñun ñu continuer rek di fay ci loo xam ne alal ju baree bari la ndax li ma wax sànq ay milliards la par année yu ñuy jël di ko yóbbu bitim réew ñan ñoo ko yóbbu compagnie étrangères yi bu fekkoon dafa am luy franc trésor public sax nga mën a wax mais dara ci franc trésor public loolu moo ci gën a métti et ça c'est au vu aussi de tout le monde de toutes les autorités ñetteel bi mooy concurrence étrangère déloyale jàpp nañ ñun commerçant yi na su fekkee mbir mi nii lay continé ci kanam tuuti ñun danañ génn secteur bi bàyyeekook ñi nga xam ne dëkkuñu fi te loolu j'interpelle ñi nga xam ne ñooy association yi yor euh, consommateurs yi léegi-léegi dañuy wax naan euh, dañu bëgg ay concurrent ñoom li leen yitteel mooy njëg yu yomb mais mbir yi ni muy doxee nii suñu wéyee te amuñ jëluñ ci ay décision mooy ñun dinañ fi jógee ñoom ñu des fi te buñ fi desee nag liñ daan jaayee 10 francs mën nañ la ko jaaye 1000 francs te doo ci man dara loolu tey karo yi exemple la ci karo yi exemple la ci tey usine boo xam ne yaa ngi fii ci dëkk bi li nga déclaré woon cahier de charge bi nga joxe woon li nga wax ne moom ngay jaayee weesu nga ko lu lu lu bu yàgg a yàgg tey commerçant yi mën nañ koo indi jaay ko moins cher que moom. kon loolu benn exemple la boo xam ne ñun ñëpp ñu koy dund kon concurrence étrangère déloyale ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am waaw ah, comme ni ñu ko waxee nag euh, problème yooyu yëpp na conséquences yi mu indi moom wax nañ ko mooy mbir mi bagage yi manque wala mu cher ñaar yooyu faw rek mu am te su boobaa la panier de la ménagère moo ko yëg moo tax li ñuy wax du pour ñun kese pour askan wi yëpp la te lii lu ñu vérifier la loo xam ne lu ñëpp mën a teg baaram nag moo tax ñuy woo ñii nga xam ne moom jàpp nañ ne seen loxo dafa laale ci lii suñ bëggee yëf jëm ci kanam faw ñu àddu lu mel ni COSEC xam nga conseil sénégalais des chargeurs la ñu wax ñoom nee nañ ñoom ñooy suñuy interlocuteur numéro un ñun chargeurs yi kon ñu ngi koy interpellé na jël ay matuwaayam kii nga xam ne moom mooy le port autonome de dakaar ñu ngi leen di wax nañu jël seen matuwaay pacte bi ci seen direction lañ ko signé woon ñoom ñoo organisé woon séminaire bi nañu jël seen matuwaay pour que ñu mën a rapidement dugg ci liggéey bi ñi ngi fay li ñuy fay bari na te yàgg na te mënatuñ ko continuer di fay euh, ministère du commerce xanaa mooy suñu ministère de tutelle moom dañoo jàpp ne Euh, duñ xam sax ay mots yuñ koy qualifier ndax euh, complicité la ndax euh, ñàkk yëg liñ ko jox wala ñàkk bàyyi xel ay compatriotes am doo am sax mot boo ko qualifié parce que dafa mel ni pour ñun dafa mel ni lu existé wul. léegi kenn xamul kañ la daraa ci amut loo xam ne def nañ ko pour lu koy saafara ànd ak ne joxe nañu ay ay ay ay ay ay ay Euh, garantie na danañ ci jox kon ci tënk liñ bëgg a wax mooy euh, mu des aussi le ministre de l'économie maritime moom it ci kilifa yi nga xam ne dañ leen war a dañ leen di interpeller ndax nag port bi ci tutelam la nekk moom it na jël li mu war a jël ci ay mesures balaa ñuy àgg foo xam ne du ñu gënal ñun ñëpp. kon ci tënk ñu ngi leen di wax ni lii mooy suñuy jafe-jafe te nag jàmbat yi bari na toog waxtaan yi bari na mbir nag dafa am fu muy tàmbale am fu muy yem mbir dafa am fu muy tàmbale am fu muy wax du jeex dafa am fu ñu koy sës waxtaan yi yàgg na lool waaye ba léegi benn action concrète amut moo tax ñu tàmbalee ci bind teg ci conférence bi dina wax leen nag bu saafara amut ñu xam ne on a un plan d'action bu ñu doxal boo xam ne lu fa sës rek ñu sësale ko fa ndax nag booy dem ba xamatoo fii nga jëm da ngay wàññeeku dellu fi nga jógee woon waaw su ko defee ñu bàyyi xel bu baax xam ne ñun dañoo nekk une association boo xam ne dafa bëgg nekk association bu responsable li mu war a wax mu wax ko fi mu ko war a waxee ñi mu ko war a waxal ñu waxal ñu wax wax leen ko buñ jëlul seen responsabilité nag ñu jël suñuy responsabilité loolu moom dañ koy bëgg a leeral ci njëlbeen gi su ko defee ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, di wax ni assis mi ngi leen di sant leen gërëm tayib waaw euh, ci lii dañu jàpp ne woote conte conseil interministériel mënul ñàkk donc président woote bokk na sax ci liñ waxoon ci pacte bi foo ñu ndëppal secteur bi port il faut ñu nëppal ko parce que y a y a beaucoup ñu teg nag acteurs yi nga xam ne ñoo ci ñoo ko bu ñoo ko seq ñoom ñëpp ñu bokk ko waxtaanee bokk ko càmbar ah bu lii amul nag ñun def nañ li ñu war a def su boobaa nag li ci des mooy wéyal suñu plan d'action li ci des incha allah temps wa euh, bis ci kanam danañu ko danañu danañu ko jox kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix ñun ñëpp